باسم الإله يكفيني القدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله باسم الإله يكفيني woyof néew doole ñàkk kàttan ñàkk pexe gaaw tumuranke moo tax yàlla digal doomu aadama yi ñuy dimbalante seen biir di wàkkirlu ci moom nit ku nekk soxla nga dimbal ci sa moroom noonu la yàlla binde nit ngir ñuy bennoo te xam ak seetlu ne moom rekk moo soxlawul ndimbal ci kenn mbaa ci lenn sunu bennoo di dimbalante tey firndeel sunu dégg Serigne Touba liggéeyal jaam yi ci dëkkam bi day firndeel sunu bëgg sëriñ Touba nañu ànd ak waa commission sociale bu Touba ca kanam ngir dimbalante ak taalibey Serigne Touba yi ci dëkk bi di Touba ndax xol yu nangu gën nawet bu nangu te xool yépp nangul nanu sëriñ Touba. li gën ci dimbalante nag mooy joxe li nit ñi gën soxla ci jamono jooju Touba ca kanam weer wu nekk ñaari téeméer la commission sociale bu Touba ca kanam nag moom lu waay am lu waay mën la di jaajëfal nit ñi joxe ci tubaa ca kanam ak ci social Touba ca kanam di leen ñaanal li Serigne Touba wax ci kuy joxe sa alal ngir yàlla te loolu mooy saraxe di nga bëgg di yàlla merloo seytaane mucc ci balaa yi mucc ci déggu ñaaw ci déggu bette fay merum yàlla seerlu ci naaju bisu pénc kenn du la anket ëllëg di woyofal sa jéggi siraat mucc ci feebar yi yàlla jéggal la sa wërsëg yokku sa alal gëna làpp gën am karange ku bëgg jaayante ci social Touba ca kanam jëlal numéro Orange Money bi di 77 914 26 68 wala compte UBA 153 17 307 307 nga toftal ci juróomi 0 toftal ci 122 ak 23 nga bind ci majuscule U N A D A Touba ca kanam liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii di Touba.